tànk boo xam te ne tey ku ñu gis comme loolu wax sànq rek ne la un activiste waroo am féete démocratie ñu niñ si war a jouer bu am solo bon rôle lañ si war a jouer mooy fexe tout possible ba yoon sax fi parce que on peut pas parler de démocratie sans li nga xam mooy justice te tey mënoo ne yow da nga bëgg yoon ba pare di am féete di far fenn raison pour laquelle tey man doo ma gis mukk ma taxaw di attaquer gouvernement bi saa su nekk du gouvernement bu defu lu mu war a def dama koy naan gouvernement bi kat li nga def waroo koo def te suñ sañoon kat nga defal ñu lii lii la askan bi soxla opposition tamit taxawaay bu ñu war a am bu ñu ko taxawewul noonu damay taxaw ne carrément opposition que mission parce que dee xool depuis 2012 ba léegi opposition bi lépp lu ñu teg ñu tegoo ba si délai 40 jours yi moo si mujj te ils vont droit vers le mur si échec lañ jëm total lii man maa lañ ko wax fii sur les 557 communes bu ñu demee élection locale

mooy fexe ba ba élection bi ñëwee ñu changé seen ay texte indi seen ay affaire yoo xam ne tey nañ leen permettre ba fexe ba ba élection yi nekk à leur faveur donc raison pour laquelle man cautionné man li nguur gi di def waaye opposition aussi da nga war di opposé wu